بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين sayduna wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain mbokk yi tëddi assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi dellu siwaat yéen ci xutab bi saydina imaamillaahi na yàlla dotti leeram ak xéewalam tey nag mu ñëw ñun ci buntu bu am solo muy buntu dee muy loo xam ni jullit bi war na di ko fàttaliku saa su ne mu wax ne eh, na ngeen di fàttaliku dee fu ngeen mënti toll ndax nit booy fàttaliku dee dina la xiirtal ci bàyyi lu bon waaye xiirtal la ci def lu baax xirtal la ci jaamu yàlla muy loo xam ni fa tabaarakallaahu du jaas mukk mune wal mawtu xaddu kullu nafsin mune dede ci ru bépp bakkan la mune ndax yàlla aji kawe ji waxna ne kullu nafsin zaiqatul mawt bakkan bu nek rek dina mos dee mu ne tewal mawtu la ya'ti ila ba'tatan sang ban dede na ngeen xamni du ñëw luddul ci mbettel te dee mooy dog ay mébét yi maanaam képp ku faatu rekk ba ngay faatu bàyyi nga mébét mu ne dee mooy dog mébét yi waaye it mooy tas mbooloo yi mu ne te dee day kaakus rëccu la mu ne kaasuk rëccu la boo xam ni bakken bu nekk dinga ko mos a naan mu ne waaye nag boo ko naanee bu fekkee ni danga nekkoon di def lu baax nee na lu baax loolu nga doon def di nga rëccu li tax yokkoo ko woon mu ne waaye bu fekkee ni danga nekkoon di def safaan dinga nga rëccu li tax nga def safaan booba ak safaan ba lu mu tuuti tuuti mu ne dee dey mooy taqale ay soppe mu ne dee mooy taqale ay soppe te it mooy taxxale jëkkër ak jabar mooy taqale E ndey ak doom mooy tàqale xarit ak xarit maanaam soppe soppe mu ne déedéy mooy màbbaloo kër yi mooy màbbal kër yi te it e, moo leen di ràppal mu ne ñaata ci ay réew mbaa boog ñaata ci ay dëkk ñoo nekkoon di aji am bari mbindeef lool naat lool nit ñiy jaabante di dem ak dikk nekk ci seeni activité nekk ci seen programme waaye nee na day ñëw wéetal dëkk yooya ràppal dëkk yooya ba nee na tey boo fa demee dëkk yooya ay gent la ñuy doon mu ne nangeen ngeen fàttaliku bis ba nga xam ni yàlla dina digal asrafil ngir mu wal buftaam ba maanaam malaaka la moo xam ni mission ba ko yàlla jox mooy def ko jox buftu bu mag maanaam mbiib mu mag li ñuy wax trompet ngir rek bu waree tukkal àdduna te moom malaaka ma boobu ba tey ma nga taxaw seex mbiib ma di xaar ndigalu boroomam moom la ñuy wax ci alxuraan ne fa iza nufixa fi suur mu ne E bés bu wolee buftam ba nee na kenn du des ci mbindeef yàlla yi nee na moo xam malaaka la moo xam nit la nee na lu dul ne yow danga sax ci sa tëraay kon fa tabaarakallaahu mu ne kon bés la boo xamante ne nii ndaw lu toll ci waxambaaneem doon gune dina ci màgget dina ci bijaaw ngir ragloog bés ba mu kon nag mbokk yi kon nag julit ñi na ngeen ragal yàlla te na ngeen ragal dee na ngeen ragal yàlla te it na ngeen ragal dee te it na ngeen jëf yiw ngir waajale ko bés boobu nga xamante ni du jaas ci kenn muy dee kon fa tabarakallahu mu ne bés booba bépp yonent ragal na ko bépp wàll yu ragal na ko bépp aarif yi na muy bépp ku xam yàlla nee na ragal nga dee waaye it ragal nga bésu taxawaay ba muy bés penc mu ne bés boobu day di nga gis aji ëmb dalde dalde imbi mu ëmboon maanaam nit dina wasin te ak wasinam du jot mu ne di nga gis gune bi jaaw ca bés booba mu ne di gis nit ñi mel ni ki ñu màndi kooku alxuraan moo ñu koy nettali watara tara sa sukaara wa maa hum bi sukaare walakinna adaaballaahi shadidun alayhim kon mbokk yi e, fàttali gaagoog muy fàttali gu am solo goo xamante ne ni sang bi moo nu koy fàttali bés boobu nga xam ni du jaas waaye nag li ñuy ñaan rekk mooy yàlla na nu fekk ca la neex yàlla moo tax mu daan wax ne lépp loo bañ dee fekk la ca rek nee na nanga ko bàyyi kon fa tabaarakallaahu yàlla na nu fekk ca la neex yàlla te it sunu mujju baat sunu mujju kàllaama bés bu digg bi ñëwee yàlla nay doon baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon fa tabaarakallaahu mbokk yi seen darsub tey ngoog incha allah yal nañu yàlla may wér yàlla may ñu gudd fan yàlla may ñu ko fekkeek tal ba incha allahu ci seen dars bi di ñëw ñu weyaat ak yéen ci dénkaanay sang bu tëdd bi di ilimaanu yàlla ji yal na yàlla dotti leer ak xéewal ci moom ak ci mbooleem njabootam gu tëdd ga ak saabaam ya ak mbooleem jullit ñépp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa